alhamdulilah walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmi ddin amma baad mbokki jullit yi bokk na ci xéewali sunu borom tabaraka wa taala yi nga xam ne xéewale na ko jullit yi tam doon xéewal yu màgg a màgg moo di ne ak dimbalante ak rafetal jëme ci sa mbokk doon na loo xam ne lu fi sax te du dagg borom bi tabaraka wa li féet nit kaa ngi dimbali mbokkum jullitam sunu boroom tabaraka wa taala da koy dimbali te nag daanaka amul kenn koo xam ne dana loru ci aajo mu metti ci moom lu dul rek li gën a bari dana gis ku ko jàppale ci mbokki jullitam loolu moom ba tey mi ngi fi jógu fi te kenn ku ne xam na ne société bi l'islam loolu moo ko ràññale ak bépp société bu mën a doon li gën a bari it mooy nit ñiy joxe seen alal di ko dimbalee seen mbokk wala seen man-man wala seen xam-xam dañ koy def rek fi sabilillah waaye nag léeg-léeg seytaane dugg ca ba nit ki sellal googu yi mu bëggoon a def mu yàqu walla mu nëx moo tax léeg-léeg jikko yu rafet ak bëgg tuyaaba day tax jullit bi mu xàmmee mbir yi nga xam ne dañ ko war a feeñal ak kañ lañ ko war a feeñal ak mbir yi nga xam ne dañ koo war a nëbb ak kañ lañ ko war a nëbb moo tax xutba bi di axwaalu naasi bayna annashri wal kitmaan mbiri nit ñi fan la war a tegu lan lañ ci war a feeñal ak lañ ci war a nëbbu moo tax waxtaan bi jëm ci loolu léegi léeg nit ko def lu baax waaye ñi nattoo ko li ëpp ci waxtaanam fu mu toog la muy def rek lay waxtaane di waxtaan ci ak tabeem ak dimbileem nit ñi bu toogee ci jataay yi man day maa taxawoon ànd ak diw diw sàngam maa ko dimbali woon bu dul woon ak man kon ba tey léegi ni mu ngi mel nangam ba ma nekkee ci yoon wa romb naa koo xam ne dafa am problème dafa am jafe-jafe pënoom nangam da caa sikk ma taxaw dimbali ko jàppale ko ba mu dem def naa li ma man sama digganteeg sama dëkkandoo diw sàngam ndax defal naa ko nangam ak nangam topp di màng di lim jëf yi nga xam ne moom moom lay defal nit ñi di ko wax ba sell nga ca waroon a am daal di yàqu kon loolu lu mat a bàyyi xel la léeg-léeg nag leer na ci ñi nga xam ne yër nag dara ci diine dañuy wax ne borom bi tabaraka wa taala daf ne in tubdu sadaqaati fa ni'ma hi su fekkee feeñal ngeen sarax yi loola lu baax lool la kon feeñal sarax ginnaaw dafa baax ñooñu yaakaar ne kon lañ ci jublu mooy feeñal sarax loolu seytaane moo fay jaare ba yàqal nit ki waaye feeñal sarax day fekk la ci nit kiy jublu mooy bi mu koy joxe ñëpp xam ne mi ngi joxe ndax ñi mën a roy ca loola ñoom itam joxe ci béréb boo xam ne su ko joxee ña ca des joxe foofa jaadu na mu yëkkati joxe nangam su ko defee nit ña roy ko ca loola ñoom itam daal di joxe njariñ daal di feeñ moo tax nag su fekkee dem na ba leneen nar caa dugg nag moo tax borom ba yëmut foofu dafa ne wa in tuxfuha wa tutuha alfuqaraa fa huwa xayrun lakum su fekkee nëbbu ngeen ko te jox ko fuqaraaw ya nee na loola moo gën ci Abu Hurayra radiallahu taala anhu dafa jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak xadis bu màgg boo xam bu ñàng la maanaam bu raglu la boo xam ne kenn ku nekk foo toll ne war nga ko bàyyi xel ca la nga nekk yonente bi bu ëllëgee bu yowmal qiyaamee sunu borom tabaraka wa taala day wàcc ngir su wàccee di atte nee na fekk xeet wu nekk ñu nga sukk bóof di déglu ndax xamaguñ fu seen mbir jëm mu ne ñu yàlla di njëkk a woo di leen àtte ñett lañ kenn ki jàngkatu alxuraan bu mokkaloon alxuraan la keneen ki ci des ab jihaadkat la boo xam ne da doon xeex ba faatu ci biir jihaad keneen ki borom alal ju bari la yoo xam ne da doon joxe ne su ko defee sunu borom tabaraka wa taala woo jàngkat boobee ne ko yow du man maa la xamaloon li ma wàcce woon ci sama yonent mu ne ok yaa ma ko xamaloon de mu ne ko li nga xam lan nga ci jëfe mu ne ko yow saa boroom alxuraan bii ma yoroon dama ci daan taxaw di ci julli guddi ak bëccëg sun borom tabaraka wa taala ne ko waxoo dëgg malaayika yay teewe itam ne ko waxoo dëgg sun borom ne ko da nga doon jàng alxuraan ndax bëgg ñu ne kii moo mën a jàng da doon jàng alxuraan ndax bëgg ñu ne kii moo mën a jàng alxuraan te nee na loola waxal nañ la ko la nga ci bëggoon am nga ko ci nee nañ yaa mën a jàng mu jeex daldi woo kese des muy borom alal ju bari ji mu ne ko yow du man maa la joxoon alal bi yaatu ba nga doylu ba aaje wootoo di taxaw fi kenn naan ko damaa bëgg nga dimbali ma mu ne ko waxu yow sam borom mu ne ko li ma la jox loo ca def mu ne ko man day daanaa ci jox ak bopp daañaa ci sarxe itam mais su waxee loolu borom bi tabaraka wa ne ko waxu dëgg malaayika yi ne ko waxu dëgg sunu borom ne ko da nga doon joxe ngir ñi ne diw moo tabe te loolu waxaloon nañ la ko mu jeex kon da nga doon joxe ngir yàlla taxul woon taxul woon waaye li nga ci jublu woon mooy ñi ne da tabe te loolu wax nañ ko kon la nga ca bëggoon am nga ko mu jeex mu daldi woo ci faatu woon ci yoonu yàlla ne ko yow ci lan lañ la rey mu ne ko yow saa boroom yaa digle jihaad fi sabilillah ma génn xeex ba ñu rey sunu borom tabaraka wa taala ne ko waxoo dëgg malaayika yi ne ko waxoo dëgg borom bi ne ko da ngaa bëggoon ñi ne diw sàngam jàmbaar la te loolu waxaloon nañ la ko kon mu jeex abu hurayra nee ci ñii ñooy ñi yàlla di jëkk a digle leen dugal sawara bu yemal xiyaamee bu doon nag lu màgg loo xam ne jullit bu ko gis bu ne koo toll ku ne ci say jëf da nga ca am tiitaange joo xam ne bañ koo feeñal moo doon li gën feeñal ko sa kem kàttan wala lu jëre ci ba feeñit duutu doon loo xam ne ci saw làmmiñ lay nekk foo toog say mbir ngay waxtaane maa defoon nangam maa meloon nii maa def nangam kon mbokk jullit yi ma la góorgóorlu sa kem kàttan tëj sa bopp ci ixlaas sellal li ngay def yàlla kese tax te nëbbu sa jëf ju baax sa kem kàttan lu dul ci place boo xam ne feeñal ko jëf ju baax ndax nit ñi roy ko loola nga ci jublu su boobaa su dee jubluwaay boobu nga xam ne sa digganteeg yàlla xam nga ne loolu nga ci jublu kooko yàqul sa ixlaas waaye nag wattandikul feeñal ne diw sàngam maa ko joxoon ndax lu mel noonu mooy feeñal xotti war may nit ka xotti suturaam ba noppi itam ngistal day daal di dugg si wattandikul sa kenn kàttan mbokkum jullit mi mooy jëf-jëf fekk li nga jublu mooy siiw nit ñe di la tagg diw sàngam moo mel ni moo xam li moo baax moo mën nangam moo tabee wattandikul loolu abdullah ibnu mubarak rahimahullah nee na dañoo laaj xamdun ibnu ahmad kenn la ci salafu saalix ñu baax na ñu ne ko lan moo tax man ñu jëkk ña maanaam saxaaba ya taabiun ya seeni wax moo ëpp njariñ sunuy wax lan moo tax mag ñoo ñee jàll muy saxaaba ya àndoon ak yonente bi ak taabiroon ya seeni wax moo ëpp njariñ sunuy wax mu ne ko ñooña dañ doon wax ngir na lislaam tedd te dëgër wax ngir na seeni a mucc dañ doon wax ngir ngërëmul sunu borom ñett yëf yëkkati lislaam ak mucc yow ak am ngërëmul sunu borom tabaraka wa taala ne ko nun nag suñuy wax dañuy wax ngir suñ tiraangay bopp ndax nag yëkkati ko dañuy wax ngir sàkku ca wax ji àdduna dañuy wax ngir am ca ngërëmul bindeef ya kon kuy waxe noonu sa wax du am njëriñ Abdurahman ibnu Mahdi ne dañoo laaj imaam bu mag nit Paalus mu ne dafa Ibrahim ibnu Adham mu ne képp koo xam ne mi ngi def dara di ca wut ak siiw maanaam bëgg lool ñu yëg ko nee na yàlla tax ko muy def képp kuy def dara amul xir lool ci bëgg a siiw ci jëf joojee muy def muy ju baax nee na xamal ne kooku yàlla tax koy def kon mbokk jullit yi jëf ju rafet ki koy def kam koy defal war na ko suturaal waaye nag am na ñeneen ñu bari ñoo xam ne jaadu na ci ñoom ñi suturaal tam ñi ñuy jëflanteel kon jëf yi am na ci war a feeñ waaye am na yoot feeñ bokk na ci ñi war a suturaal ñi ñuy jëflanteel mooy ci sunu borom tabaraka wa taala nattoo ñi di ko tudde borom xam-xamu diine nit ña di ko laaj ndax kii ñëw di laaj ci diine ay sekkareem ak i mbóotam lay wax ki muy laaj kon kooka war naa xam ne lii sekkare la bu dox diggante kii ak kii su fekkee ne ku xam la muy def lam yeyoo la su fekkee ne ku xam liggéey bi mu nekk muy di leeralal nit ñi seen diine la war naa xam ne mbóot ma dox digganteem ma nit kookee kooku kenn waru koo waxtaane ci mbir yi ñu war nëbb ci la bokk lu dul su fekkee am na lu muy tudd ci ay mbir yu mel noonu xam na ne société bi mbir yu bone noonu ndekete mi ngi ci biir mu di ko waxtaane di ci yee ña ndax ñu mën koo wattandiku waaye su fekkee ma ngay def loola nag du wax ne li dal diw sàngam wala diw sàngam mi ñëw di ma laaj nee na nangam ak nangam dafa dal yaayam wala dafa dal baayam ndax léeg-léeg nit ñëw di la laaj la ay secret yoo xam ne ñu rëy laaj war la ne waajuram day naan sàngara waajuram day def nangam waajuram day def nangam doo dikk taxaw ci kanam mbooloo ne comme waajuru diw yi nga xam ne nee na nangam ak nangam waaye wattandikuloo nit ñi lu mel noonu te bañ a tudd jenn jëmm su boobaa mooy jaadu comme ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan waxee ne maa baalu qawmin yafaluuna kada wa kada lu tax aw nit di def nangam ak nangam ak nangam ka toog ci biir mbooloo ma xam na ne loola moo ko moom wala ña ko moom ca la bokk waaye kenn xamul ku mu doon sutura soosu lañu bëgg mu dox diggante mufti bi ak mustafti bi muy kay laaj ci diine ak kañ koy laaj bokk na ci loolu ku ñuy diisool ki ñuy diisool léeg-léeg mën naa doon mufti bi mën naa doon itam keneen boo xam ne du borom xam-xamu diine waaye boromum xel la walla liñ koy laaj lum xam la kooku moom itam nit ñi dañuy jël seen i mbóot ak seen i yi nga xam ne bëggaguñ mu siiw ñu teg ko ci loxoom di ko ca laaj xalaat loolu mooy ku ñuy diisool xam ne loolu mën naa doon mbóot moo xam ne dafa dox diggante ñaari way dencante muy jëkkër ak jabar wala mu dox diggante doom ak yaayam wala baayam maanaam doom wala mu doon nit ak koo xam ne dafa associé ak moom te bokk ak moom ab liggéey buñ nekk wala mu doon sax koo xam ne dafa jóg di labati jigéen wala muy jigéen boo xam ne góor dafa jóg di ko labati kenn ku ci ne dana soxla di diisoo ak nit kon dana jaadu ci ki nga xam ne moom la ñuy mu xér lool ci sekkar yooyu dox digganteem ak kii diisoog moom mu nëbb ko lu bari ci nit ñi nag seytaane da leen di yëngal foofu su fekkee ñoo jox nit xalaat ba ñu dugg ci seen projet bu ñu doon bëgg a def mu baax ñu bari duñ mën a noppi foofu dañ daan diw sàngam day bi mu ñëwee ci man nangam ak nangam dama ko waxoon ba mu ko defee gis na ca nangam ak nangam ak nangam di ko damoo ci këram nit diw sàngam day maa ko dimbali jàppale ko jox ko xalaat bu fekkee ne sëy naa diw tey ba ay doom di ci juddu kooku sama xalaat ya moo ko waral wala muy feeñal yeneen i yu war nëbb la kon li jaadu ci kooku mooy mu nëbb secret yooyu mbir ñaari mbir ñoŋal deru koo ki nga xam ne ma ñëwoon di diis ak moom ak itam xalaat yu rafet yooyu ma ko joxoon mu denc ko ngir yàlla kese ndax mu mën caa am ab yoon kon ñoŋal darub jàmbur ak wut sëb yoon yaar yooyu moo war a tax mu nëbb bokk na ci ñooñu nga xam ne boroomi secret lañu war a doon mooy ab docteur buy faj ndax docteur bii faj xeetu awra wu ne dana ko gis ci doomi aadama yi ba àgg ci ñoom foo xam ne sax daanaka keneen du fa àgg kooku ci ñi war a gën a ragal yàlla ci la bokk ci ñi war a gën a wattandiku waxtaane la muy gis buy faj ci ñooñu la bokk te lu gën a bari da ngay gis rawatina sax ci fajkat yi nga xam ne ñu ci bari ay xeeti njabar la ñuy jëfandikoo gi kenn xamul li mu doon nga xam ne docteur lañ leen tudde wala fajkat wala sëriñ wala tur ñu leen mën a jox ñu bari ci ñoom dañuy damoo di wax ne man day diw sàngam ci boppam sama client pour ñu xam ne ku rëy kooki ginnaaw mi ngi ñëw di ko seet si kon kooku ku ñu war a mën a seeti la su ko defee lam ciy jublu mooy publicité boppam yu mel noonu di damoo lu mel noonu kooku la muy def baaxul waaye du nu nëbbkati sekkare boole ca waaye docteur bi nga xam ne day faj ci jaar ko ci yoon it na bindoo noonu na fexe ba góor ci lu mel noonu ba du feeñal mbóotum kenn bokk na ci ñooñu koo xam ne day sang ab néew ndax ñi sang ay néew lu baree bari lañuy ñuy gis ci ay sekkare ci kër nga xam ne ñi ngi koy sang kon ci ñi war a mën a tëj seeni làmmiñ ca mbir moomu ci lañ bokk moo tax bu ñu leen di tànn dañ leen di tànn ci ñi gën a noppi ci nit ñi ñi ci gën a maandu ñi ci gën a néew ay wax du dagal ci nit ki lépp loo xam ne gis na ko ci néew ba wala dara loo xam ne gis na ko ci moom mu di ko waxtaane wala mu di ko yëgal kenn lu dul nag loo xam ne da ko caa gis mu doon mandarga moo xam ne mandarga mu rafet la moo xam ne day tax jullit yi am yaakaar ca mbokkum jullit moomee faata ndax léeg nit ki di sang ab néew gis ci moom xeetu leeru xar kanam goo xam ne bu muy ko woon ci moom kon lu mel noonu waxtaane ko dara faatu yóbbaale ab muuñ maanaam mel ni ay ree gimiñ gi mel noona mu faatu yóbbaale ko su ko dee sange gis ca lu mel noona kooka waxtaane ko dara nekku ca ndax dafa doon ay mbir yoo xam ne yu rafetal njort jullit yi ci moom la ñu mën koo dolli ak ñaan bokk na ci yooyu léeg-léeg ci biir liggéey yi nga xam moo dox diggante nit ñi ay mbir yoo xam ne boroom mi ngi lay liggéey la waaye bëggul mu feeñ waaye yow foo yaa ngi koy waxtaane projet la la defloo boo xam ne mi ngi bëgg a tabaxoon tabaxam nag diw sangam de maa ko defaral plan bi nga xam ne mi ngi bëgg a tabax kër goo xam ne bu àggee xam naa ne ci kër yi gën a baax lay bokk te kooku waxu la ne waxal ma sama projet boobu waxal ma ko kenn kon yu mel noonu doon na ay mbir yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la bokk na ci ñaari way dencante yoo xam ne dañoo dem ba tàggoo ay jullit yu ànd di sëy ci lislaam ba tàggoo loolu du tee ku nekk suturaal sa morom waaye kenn ku ci nekk mën ngaa dem la nga xamoon ci sa morom ci ay secret moo xam secteur yi jikko la wala secteur yi biir néeg nga di ko waxtaane ñeneen ñoo xam ne seen yoon nekkul ci loolu yooyu yëpp ay bàkkaar la fi ñàkk secteur la allahuma ansurna wala tansur alayna allahuma ankur lana wala tankur alayna allahuma rudd anna kayda alkaidin wa makra almakirin wa sixra alsaxirin wa baxya albaaxin wa tugaat almutamarridin wa junud iblis ajmain allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka xamidun majid